waaye gëm yi ñëw ci ay lim yu takku ngir teewe julli aljuma bu fukki fan ak juróom ci weeru mee bile di bi njëkk gannaaw juróom-ñetti semaine ba ñu aaya li nga xam ne mooy dajaloo yi ci jàkk ak juma yi file nag ci masalikul naan fexe nañu ba sàmmonte ak lii di geste fagandiku yi. lépp luy matuwaay jël na ko nañ koy defee jumaay Tuuba noonu lañ koy defee fii képp ko am yàlla dogal leen solo masque doo tabbi ci jumaa ji jumaa ji bañoon na ko ba daana ci biir ci biir rek jumaa ji à l'alentour daana jël lu mat 7000 places mais def nañ mesure barrière yi ba mën a jël 1674 places bu jumaa ji feesee ñu tëj ko def mesure barrière yi ci biiti esplanade bi bu ja nem jàppandale bu fekkee dem na ba fees ñu tëj ko képp koom mën ngaa foo waay toll ba 10 kilomètres mën ngaa dégg écho bu écho du rajo bi. jox nañ euh, ñu gel volet jox nañ ñu ñu ngeeg si si ñu ngi ak suñu masque ñu ngi ak suñu gant te dinañ respecter distanciation bu soobee yàlla kontaan nañ kontaan nañ ñu ngi sant bu baax. digle yi dafa leer te way talibi yi ñoom it ñu ngi ciy bàyyi xel ngir gën a gunge waaye jullit yi si matal ponk bile sax am na ay volontaire yu ci dugal seen loxo ngir jàpp ci ñaax bi. suñu objectif mooy defar ay banderole pour sensibiliser euh, population yi defal ay masque comprendre nga ko mayaale si buntu jumaa yi puisque état bi moom moo permettre jumaa yi pour ñu pour ñu julli quoi mesure nag dañ la ñuy juste rappeler mesure de prudence yi quoi ak euh, ak yi. képp koo xam ne nii respecté woo mesures yooyu dañ lay wax ak moo daarante yow ndànk ñu ne demal nga ut loolu bañ nañ ko ba am nañ ñoo xam sax dañuy taxaw di may ay masque boo gisee fële képp ku ñëw yore masque sax dañ lay may masque masque julli. soo duggee ci biir jumaa ji moom seetlu gi benn la. mu direk li nga xam ne mooy bañ a jegeyantoo bi nga xam ne moom la ñuy xaar ci waay jullit yi ñu gis ne fës na lool ku nekk nag ak jàngat ba nga ci am. julli gi nag ñu ngi ciy sant bu wér parce que euh, charte yi ñu tëral pour ñu respecter ko te euh, directive yooyu médecin yi joxe ko moom lañ appliqué mooy li am Touba rek moom lañu def fii te ñun suñ lépp sëñ sëñ Touba la li sëñ bi santaane daal ci loolu rek la ñuy dox.

ak julli àjjuma bu tey bilee nag Masaalikul Jinaan dëgmalaat na julli juróom yi gannaaw ndogal gi nga xam ne nag yëkkati nañu ko soxaloon rek aaya ndaje yi ci bërëbu jullikaay yi ci réew mi.